lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatul xaraa wa inni Ahmadu man Ahmadu Mbàkke bii nee naa muy dëkk ci Mbàkke Baari man Ahmadu maa jóg di yeesal lu sunna sunna Seydina Muhammad sama tànk ngi ci kaw suuf saa bopp jëm kaw asamaan di ma tiim may taxaw ci kaw suuf malayka yi di ma wër gaay yi Badar darma asiru ma habdari inna asiru wa zanna al idaha hida ani hunaka asiru armée yàlla bi topp ma nga xam ne sama armée ba àndal moo gën a fort armée bi ngeen àndal da ngeen gisu armée ba àndal ne ko du ngeen sama armée ba àndal moo gën a fort armée bi ngeen àndal sunna Moustapha dina ko yeesal def ko soow sol ko ci wéenu jigéen ñi ku judd sa ndey boo nampee xam ne Moustapha di saf fi nag may nekk ma Ahmadou sunna sudu ñu ne gars yi kon ñibbi leen na gars yëpp dem Ahmadou mais doon ne sëkk wax te lañ libéré ñe woon daal ñëpp fab sëñ Bamba def ko ci bato bi ànd ak moom Moussa fi ngay laaj bunt bi ngay laaj diggante bii la dañ koo yóbbu ba ci ba lëngëre ko danoo yóbbu ba lëngëre danoo lëngëre ba xam ne géej gi xóot na lëngëre ba nga xam fii ko fi wadd gisatul la mbaaw waxuñu ko dara nag neewuñu ko boo julliwul neewuñu ko boo julli waxtu tooñ niw ñu ko moo jëlee tooñ ñu dañoo maanu ci moom li ñu wax daal mooy xam nañu xel ni ñëwatu julli seen bato seen bato moom du si julli moom hmm. te it nañ ko loo xam ni ci seen i bët ak seen i pexe xam na ne bëggul ñu ci seen bato ba waxtu wu jotee mu ne kes der gi même ba dubatul yow géej gi bu duusu leer tekk te xam ne ñetti jaam ñoo fi nekk té man ahmadu may jamm bi nga xamné jamm ki nek ma la gën ragal yalla géej gi jamm la bato bi jamm la tubaab bi jamm la té benn jamm wax ragal sa borom jamm yow géej gi la nga xamné ñi nga labal dañu moy yalla té man ahmadu musuma moy yalla taxawal ne tek ma jamm ci kaw suñu borom subhanahu wa taala jël gi ne ko test tek ko ne wa bi rabbil arsi wal khafi mahal Mustafa li wallahu muhdi safi julli ñent rak selmal yalla ne ko ahmadu mu ne ko bindal جاكي أدباي أجام يفاين على كو سنتما بني الله يلا الله يلا نيكو مري الله يلا مومي ملكني دنيا وأخرى سمدو ما إنه لتاره محمد دقل لولو دقل نكتك ملكني مالكو كل جمعه وكل مسجد يقعي الدماي من المجامعه أجامت بالله قلولن مكبر سيامد بامبا كدر جاي سيدنا محمد صلى الله sëñ Bamba fi ne Moussa Xaadim Rasul bokkut ak kenn billaahi la si lii moo tax mu nekk ci géej gi mais naan ñaan yàlla waaye léegi bu ma ñibbisee yàlla def bu ma ñaan fi ma wax defal rek ma defal la xam nga bi ne lu mu dal wax fataahu yaa rasaahu yaa maliki xiftar wa xabliya wa sukni bi kullaana bi ñu def wax de fataahu yaa rasaahu yaa maliki hebtaru hamdiya wasukuni bi kullaana bii de moo ñal yàlla de waaye de bi wàññeeku yàlla def ko ne amul loo may ñaarate del wax ic al ak wàcc al del wax defal ma ak def ko léegi rek mu def ko man yàlla ne la wóor ni daal ne la wóor ni bi si tay def naa la ngay kenn yaa liggéey ki ma ñor man yàlla yaa liggéey ki nga xam ne trois cent treize jaar nañ fi ngir wane ko kenn wane wu si coobareem yow rek yaa liggéey ba liggéey bu mat nga jël ko def ko addi rasulullahi kon ne la wér ni man yàlla dootuma la waxati mukk どいぞ、もらまいじで danga naan ma sama mbuur gaa ngi nii nangam nga ci bëgg ma defal la ko wat ak ical moo tax mu ne taxaw naa ci waaxu Moussa Siri tallal sama loxo man sëñ Tuubaa aj ko ci kaw ne waat naa wàcc naa wa aji wàccaal na ko aj ci man Bamba ñu ne ko waxam mu ne yàlla ic al wujoohi ilaa xaw mi soxaarati naa moo teg fi naa yow ma jëmil xal xi nii na laa ic al defal ma rujoo yi sama dellu ilaa xaw mi ci sama nit soxaarati naa ak texe wa teg fi naa nga fegal ma yow ma jëmil xal xi nii na laa sama wax ka dégg rim sa wala waxuma ju tabb sa wala na jaa amul baahi mi ne ni daa yi dunya ukhra wa min khusani bisu pett bisu tatar ba ay yow yàlla sama ko ci dara كتاب كريم من كريم مكرم لهبد كريم للخديم كريم من كريم مكرم لهبد كريم للخديم يمير كتاب كريم من كريم مكرم لهبد كريم للخديم يمير